waxal bu baax monsieur le ministre. aujourd'hui

et à la suite de cet entretien waay déglu leen waay déglu leen waay le directeur médical m'a conduit au niveau de la salle avec euh, madame la directrice pour euh, déjà avoir des éléments et l'appréciation. Monsieur à l'état actuel de la situation, j'aimerais effectivement partager la douleur avec les familles parce qu'il faut absolument le dire, c'est extrêmement douloureux. Pourquoi d'ailleurs le chef de l'État a décidé la douleur avec euh, le Khalifa de Tidjal et tout Tiwawan, mais partager la douleur avec le peuple sénégalais. Aujourd'hui, il faut noter que nous attendons le rapport d'expertise technique de la Sénélec qui va nous édifier sur l'origine du feu. Je vais donc devoir, de ce point de vue-là, m'en là, parce que, à l'état actuel de la situation, nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Euh, Je crois que vous avez eu cette information depuis hier. La néonate qui pouvait prendre 13 bébés de capacité. Et au moment, effectivement, de l'incendie, il y avait 11 bébés qui étaient dans la Il y avait suffisamment de 5 heures. Ces, ces éléments-là, vous les avez. Le reste maintenant, nous aurons l'occasion effectivement de l'aborder. maa ngi leen di gërëm bu baax di wax ne mbir mi ba muy am démb mu ngi ma fekk Genève. may représenté Sénégal ci soixante quinzième assemblée générale de l'organisation mondiale de la santé ba ma ko yëgee la suspendre participation Sénégal a un niveau ministériel changer sama réservation départ quatorze heures fekk ma fi ma jóge aéroport jubal directement seeti sëñ Ababacar Sy Mansour xalifa général des Tidianes waxtaan ak moom ba ma waxtaan moom ba pare laa jubal fii si hôpital bi dem naa xool situation bi def naa benn réunion ak euh, ki xamante ne moo jiite hôpital bi may wax ne maa ngi jaale bu baax famille yi di leen massawu parce que lu metti metti moo leen dal mais lu metti moo dal Tiwaawan lu metti moo dal xalifa général mais lu metti moo dal askan bi yëpp maa ngi massawu bu baax a baax a baax wax ne nag fii ñu tollu terme xam ne salle néonat bi mi ngi doon capacité am fukki bébé ak ñett la mais ba mbir mi di am fukk ak benn ñoo fa ñëw fi mu nekk nii nag. mënuñu si xuus trop parce que enquête technique nga xamante ne Sénélec mu ngi koy def mu war a déterminer origine feu bi danañu ko jot incha allah foofu laa si yem di wax ne effectivement dem naa seet aussi famille bi li ma wax mooy effectivement ñu ngi leen di massawu bu baax a baax a baax a baax parce que li leen dal vraiment laaj na accompagnement psychologique bu baax te actuellement d'ailleurs le professeur Aboussi mi ngi fii si hôpital bi ak ay équipe am pour ñu mën a def accompagnement psychologique bi xamante ne nécessaire na pour que ñu jàppale leen dellu seen. maa ngi leen coow li bëri na monsieur le ministre. waaw. Thank euh, you. Euh, C'est juste une question. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais c'est juste une question. Merci à toi. Merci à toi. Ah. Mort. léegi man léegi voilà mbokk internetu Feeling Dakar gis nañ déclaration nga xamante ni ministre de la santé et de l' nga xamante ni moom taataan nañu ko moom ci jëye nga xamante moom moo amoon fii ci hôpital Mame Abdou loo xamante ni amaan na ci lu ci ruusen lu seni ki nga xamante ni moom mooy eh, monsieur Diop Sy moom tamit mi nga xamante ni moom mooy maire dëkk bi dégg nañ tamit moom tamit li wax dégg nañ ministre bi tamit déclaration bu mu ministre bi tamit question yi que aske que journaliste yi doon nangu ci tontu mooy que ni askan wi am na ñuy wax ni pour mu démissionner mais foofu dañ ko laaj question boobu nangu ci àddu mu tourné daal di leen ànd ak euh, ñi nga xamante ne mooy délégation bi nga xamante ne ñoom la ànd monsieur Abdoulaye mu Sarr mi ngi noonu mi di dem ak euh, la police monsieur Diouf Sarr mi ngi noonu di dem Monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr moom moo ñëwoon fii nga xamante ne fii la affaire yi amee mi ngi wax ni moom nekk fi woon Genève la la la demoon fa la jógee ñëw fii ci hôpital bi nga xamante ni monsieur Diouf Sarr mi ngi noonu ci oto Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé et de l' action sociale mi noonu moo teewoon fii ci hôpital bi nga xamante ne mooy Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick Tivaouane si fi nga xamante ne mooy maire dëkk bi di monsieur Diop Sy monsieur Abdoulaye Diop bi nga xamante ne def na fi waaye nanguwul addu ci question bi ko journaliste yi laaj mooy que ni askan wi am na ñuy wax ni pour nga démissionner ak yooyu bañ ko laajee question boobu dafa tourné dem addu wuti bi lañ Dakar TV ne woon nañu leen lépp loo xamante ne lu fi rusandi ci information daañu leen ko toppal te noonu lay demee incha allah monsieur Diouf Sarr beneen problème. Sëñ mi ngi noonu di wàccaat ci oto bi mi ngi noonu di wàccaat ci oto bi monsieur le ministre mi ngi noonu wàccaat yow miy faj Oh, da gab es. Da gab es aber so. ما بتعرفوا Sadio Mané Attention, attention, attention. Doucement rek, doucement. Attention, attention, muy jëm si nii. monsieur baa ngi noonu si Abdoulaye Diouf Sarr. fii nga xam fi la dalal nga xamante ni ñoom seen doom yi loru ci jëye ji ministre bi dugg na monsieur Diouf Sarr.